ñu ngi lay ñaan bala nga sétane suñu vidéo nga dal di abonné bés cloche de notification bi pour vidéo bu dugg rek ngeen mën ci jot seen déformation bi leen di jox xibaar yu wër te alaykum wa aduna salam alaykum wa Sénégal gay album de l'année ba ngi lak dëkk bi gay dem leen ci plateforme digitale yu nekk ci aduna bi yépp Europe Asie Océanie america YouTube bi fep gars yaa koy jënd sa saa loolooy liggéey. kay waajal leen xam ne Pape cocktail bi promotion album bi fële ca rajo Sot manger boire écouter pap djouf dina ko def live pap djouf dina ko def playback pap djouf dina ko waxtaanee ñepp dinañu dégg tëkk kay kuy liggé ak kuy wër di wax bokul Papa Diouf a ñoxo baay c'est le meilleur des meilleurs albumam bi ginde na jàllale na jàppale na yeete na dimbali kon gars yi waajal leen ko tey incha allah cocktail bi fële album baa ngi toj dëkk bi. Adamo tontu nga ma nangu naa waaye albumu lébu bi kaset euh, soowu lébu bi Pape Diouf nee na yow la ko may ndax xam na ni da ngaa dégg.